dalal ak jàmm ci suñ kër gi di suñ production di leen xamal ne ñoo ngi amal ay histoire yu am solo te di leen jariñ fekkee gan nga ci seen bi nga abonné te partagé ko sa ay xarit ngir ñu mën ci jariñu sunu production sunu mbégte salaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw bi ñu leen nuyoo ñoo ngi leen di ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di leen indil seen ñeenteelu épisode di série bi nga xam ne mooy soxor balay loolu nag ñoo ngi leen di ñaan ngeen abonné ndax seen bi seen bu bees la te gis nañ ni vie mu ngi ñëw nànk-nànk mais dafa mel ne da ngeen fàtte abone bi ñoo ngi leen di ñaan daal ngeen abonné te sem te partage ko seen ay xarit ngir ñu mën cee jariñu ñoo ngi yemoon ak yéen nag fi nga xamante ne mooy Moussa Ndiaye ay mbokki Aïssa wax nañu moom ne ko demal nga dimbali kee di Rama ndax ànd ak sagoom ba Moussa Ndiaye jugee woon ci hôpital ba ginnaaw ba mu bañee ba mbokk yi nag yaay ko ba mu jugee foofu ci hôpital ba jëm këram. boobu nag fekkoon na kii di nekkoon na taximaan ci biir néeg bi ndax taximaan bi Rama da koo waxoon danga may violé wala muy yuuxu waa koñ bi ñëw ma sëf la ñu tëj la ba taximaan bi àndoon ak moom ci jëf ju bon jooju bi Moussa Ndiaye nag agsee ci kër gi. ba romb gardien yi ba dugg ci biir dugg ci biir bâtiment bi bi mu demee ba àgg ci kaw nag ba tijji nekk ki nga xamante ne mooy Ramon na nga tijjeeku ba mu jëloon ci ay caabeem sax daal di tijji néeg bi ndax moom moom kër gi te néeg yëpp la am agsi ginnaaw ba mu tijjee nag ba fekkoon ki nga xamante ne mooy Rama ak taximaan bi ci biir néeg bi. kii di taximaan bi nag bi mu gi am kuy wax doon na profité pour sol yéreem mais xaju fi ndax diggante bi ñu tijjee bunt bi dafa jege loolu ndax taximaan bi kat nangutu woon simmeeku sax waaye Rama moo ko wax. fii maa fi dogal da ngay def comme ni la sa ndey juree wala ma def li ma la wax wala ma yuuxu tuumaal la viol ñu tëj la ba taximaan bi amatul pexe daal di def comme ni ko Rama wax Rama tamit def comme ni ko ndeyam juree moo tax bi ñuy tëj bunt bi soluwaat xaju fi ba tax na kii di Moussa Ndiaye da leen a bett ndax bi mu tijjee néeg bi da leen gis ñoom ñaan ñëpp ñu def yaramu neen bopp Moussa Ndiaye bi nag boobu dafa jaxasoo loolu ndax ci problème yi mu jugee ñëw dal ci beneen problème ci noonu mu daal di sukku ñàkkutooy xépp toog diir bu yàgg boo xamante ne waxul ci diir boobu nga xamante ne nag monsieur Ndiaye sëgg na kalmu toog sukk ñaari tànk yi taximaan bi moom ngi naan ko man de liggéey rek laa xam waaye sa soxna sii de moo ne ma ma njaaloo ak moom par force wala mu tuumaal ma viol ndax boobu te na néeg bi dama nag moom doo dong nekk ci kaw loolu nag laa loon ragal ba tax ma defal ko lu mu bëgg ndax su ma tuumaaloon viol man njaboot laa yor te samay njaboot ci man rek lañ jaakaar te su ma ko deful lu mu bëgg su ma tëjee ñooñu dañuy torox si sa mbokk yooyu de loolu moo gënoon a sedd ci ñoom ndax au moins dinañ la gis te dinañ yaakaar ngi génn ba continuer sa vie waaye tey nag jàppal ne sa dund gi dafa jeex maanaam dama lay rey. bi mu waxee loolu nag Rama dafa siggi daal di tiit torop kii borom taxi bi tamit dafa tiit ba mënut a taxaw ndax tànk yaa ngi lox ba mujj gi dafa toog ci kaw lal bi ndax mënut ta dox dafa tiit torop si la kii nga xamante ne nag mooy Rama commencé di jooy ay jooy metti commencé di sosal borom taxi bi. naan ko ay sama sang bi kii lim la wax bul ci gëm dara bi may indee ba ci buntu kër gi sax ñi nga xamante ne ñooy gardien ñoom bëggoon yéegal waaye moom moo ne leen kii fi ma ko téye nii su ma ko bàyyi da koy gaañ bàyyi leen ma ko bi ñu yéegee ba ci kaw nag si jaay ma doole comme que moom góor la daal di may violé bi muy wax nag Moussa Ndiaye tontuwu ko benn yoon Moussa Ndiaye mu ngi jug taxaw di ko xool ay bëti ku mer koo xamante ne soo xoolee xar kanam gi di nga xam ne kii dafa mer torop ba borom taxi bi sax moo ci tane ki nga xamante ne mooy rama ndax borom taxi bi au moins Moussa Ndiaye doon na ko tontu waaye kii nga xamante ne mooy rama Moussa Ndiaye tontu ko benn yoon bi rama di wax laataa muy daaneel nag c'est la kii di Moussa Ndiaye daal di génn néeg bi rek këdd bunt bi daal di koy caabiwaat daal di waaxu ay waax yu dëgër daal di ñett ñett escalier yi daal di wàcc dem ci ñi nga xamante ne ñooy gardien yi bi mu waaxoo ba agsi ci ñoom dafa ñëw daane leen yéen laay waxal ñëpp sikk di ko xool daal di tiit loolu ndax Moussa Ndiaye soo xoolee xar kanam dangay xam ne kii dafa mer ndax kanam gaa ñu saxaar mu ne leen weer bii calculer leen bis yi ngeen fi am ngeen wax ma ñaata la ci xaalis ma fay leen ko da ngeen abal ma bi mu lay waxee loolu nag nar a dem Bergade daane ko déet Moussa Ndiaye na lan moo waral nga wax lii ndax kat lii moom contrat la te mënuñoo xëy xëy rek nga ne danga ñuy dàq te yow yaa ngi fi romb léegi jàmm santeeg ñun yéeg ci kaw wàccaat indi changement bu gaaw bi Moussa Ndiaye lan moo xew monsieur Ndiaye daan leen man daal sama yoon nekku ci li ma leen wax dégg ngeen ko ndax kii di Rama yàgg ngeen a xam ne dafa indi ab faram saa su ma liggéeyee ñuy nekk ci lu leen neex ndax boobu monsieur Ndiaye commencé na di ñaaw njortu ne taximaan bi moom du fi gan kii mu gis nii mu nekkoon ak Rama ak anam yi mu leen gisee moom mu ngi doon xalaat ci xelam naan kii moom nekku fi gan nekku fi tey la fi doog a ñëw si la ko garde yi ne ko déet loolu soo ko waxee di ñu tooñ ndax kër gi niñ koy téyee soo fi nekkee soo ko génnee nu ko raw lañ koy téye kii nga xamante ne nag mooy taximaan bi ngay wax bi mu agsee ba ci bunt kër gi bëggoon naa dëpp pour bàyyi ñu ñu yéegal rama waaye rama moo ne ñu ñu bàyyi ko mu yéegal ko ndax taximaan bi ni mu ko téyee baax na te day ragal su ko bàyyee ñun diggante bi nga xamante ne ñoo ngi koy jéem a jàpp ko ñu daal di koy gaañ ba tax na ñun tamit ñu daal di bàyyi ki nga xamante ne mooy taximaan bi comme que rama wax na ni mu ko téyee baax na ñu daal di bàyyi taximaan bi daal di koy yéegal bi mu waxee li muy wax si la Moussa Ndiaye daat koy woon ginnaaw rek wax waxi tàng daal dugg ci kër gi ndax xam na ni kii nga xamante ne mooy Rama da koo fen ndax Rama wax na ko ne taximaan bi moo ne ko bàyyi ma yéegal la ndax su ma la bàyyee ñii suñu la téye mën na laa gaañ te ñi nga xamante ne ñooy gardien yi dañoo wax ne Rama moo leen wax comme baat boobu nga xamante ne moom la Rama sosal taximaan bi bi mu duggaatee ci bâtiment bi nag da koo tëj daal di ñett ñett escalier yi yéeg daal di jubali fi nga xamante ne mooy néeg piri am néeg bi nga xamante ne kii di Rama moomu ko kii ay Aïssa tamit ko néeg bi nga xamante ne moom moo ko moom personnellement ba fa duggee nag comme que moom ci wirum entreprise lay liggéey ak wàllum xaalis ba tax na daan garde arme si la génnee li nga xamante ne moo di ab pistolet bi mu ko génnee nag daal di génnee fi bal yi nekk daal di chargé ñeenti bal ci pistolet gi daal di waaxu waaxu yu tàng jër génn bi mu génnee daal di dem daal di tijji nekk ki nga xamante ne mooy Rama daal di frappé bunt bi bu baax maanaam daal di dóor bunt bi tijji ko tijji boo xamante ne ti ku mer la si la daal di jël pisala gi daal di tiire ñaari bal ki nga xamante ne mooy rama jam ko ñaari bal ci boppu noonu nag taximaan bi amutu pexe te xam na ne kii moroomam la te moom waxambaane la si lay daw pour song ki nga xamante ne mooy Moussa Ndiaye pour mu bañ koo tiire mais bi muy daw jub si ko ki nga xam ne mooy Moussa Ndiaye si la gaawee rek tourné pisale gi daal di koy tiire bi mu ko tiire nag bal bi daal di koy dal ci dënd mu daal di koy jam benn bal mu daal di daanu sala moom biñ ko jëmee ñaari bal dafa dee ci saas yi mais ki nga xamante ne mooy taximaan bi moo ngi génnee dara ju bari loolu mais moo ngi wax déewagul monsieur Ndiaye nag tiit na foofu loolu ndax problème mi commencé naa bari ci boppam ndax ki nga xamante ne mooy Aïssa bàyyi na ko moog doomam ci lalu hôpital bi ñu nekk ci danger mais bi mu ñëwee li fi fekk ci këram ko ba tax na talatul sax ki nga xamante ne mooy Aïssa ndax mer bi nga xamante ne dikkal na ko bi mu ñëwee ci kër gi ba tax na loolu nekk ay problème ci moom ba fees bopp bi ba mu jël li nga xamante ne mooy du pisale gi daal di leen di rey ñoom ñaan ñëpp maanaam Moussa Ndiaye jaaxle na ndax bakkan ni mu fooree moom ci ay waxtu jël na ñaari bakkan ci li nga xamante ne andu sa ko maanaam xalaatul si noonu Moussa Ndiaye daal di sukk commencé di jooy bopp bi na commencé jaxasoo Moussa Ndiaye di duur koro bu baax a baax commencé di tëdd ci fi nga xamante ne mooy koro di xalangu maanaam Moussa Ndiaye daal mel na ku daanu ay rab diggante boobu nag Moussa Ndiaye jékki-jékki na yëgatu ci boppam dara maanaam loolu nga xam te ne na ko ba mu commencé di daanu ndax jaaxle yi mu am da koo nelawloo bi mu paree ci daanu bi daal yërëm bi doon metti ba mu nelaw ginnaaw bi nga xamante ne nag Moussa Ndiaye mu ngi foofu noonu di nelaw kii nga xam ne mooy ay sa nekk ci hôpital ba bi mu yeewoo dafa yeewuwaale biir bi metti maanaam dafa yeewu di yuuxu naan sama biir bi si la médecin yi gaaw daw ñëw daal di koy xool biñ ko xoolee nag si lañ wooyee ñi nga xamante ne ñoo yor wàllum ëmb si la ñoo ñëwee daal di def seeni analyse daal di wax ne kii day accoucher bi médecin bi waxee loolu nag mbokki ki nga xamante ne ñooy Aïssa am na ñu jaaxle woon loolu ndax ki nga xamante ne mooy Aïssa mu ngi tolloon ci juróom-ñetti weeram maanaam tollagul fi nga xamante ne mooy juróom-ñeenti weer yi nga xamante ne si la war a defee accouchement bi si la war a wasinee si la am ñu commencé xalaat naan accouchement bi moom ni mu gaawee te Aïssa matalut ay weeram baadu doom ji dafa dellu moo tax accouchement bi gaaw nii ci noonu si la ko médecin yi jëlee daa di koy déplacé daa di koy génnee foofu nga xamante ne fi lañ tegoon ki nga xamante ne mooy Aïssa daa di koy déplacé pour yóbbu ko fi nga xamante ne ñiy accusé fa lañ nekk maanaam ñiy wasin foofu lañ leen di dugal diggante boobu nag mbokk yi nga xamante ne ñooy Aïssa ku nekk yaa ngi jël sa téléphone di ki nga xamante ne mooy monsieur Ndiaye waaye monsieur Ndiaye boobu moo ngi nelaw ndax boobu li ko daanee daaneeloon bàyyeeku ko waaye nag mbir mu yéeme ta doy waar loolu dafa am ndax kii nga xamante ne mooy ginnaaw bu mu defee accouchement bi ba médecin def seen liggéey mu daal di am doom doom ji nag bi mu juddoo gaañuwul indaal na bakkan waaye kii nga xamante ne mooy Aïssa bii nga xamante ne doom ji juddu na te tëddul ci lalu hôpital bi lu mat 3 minutes daal di wuy ji boroomam maanaam Aïssa dafa gaañu ginnaaw bi nga xamante ne def na wasin bi ba pare ki nga xamante ne nag mooy xale bi nga xamante ne ñëpp dañ doon yaakaar ne su juddoo di indaale bakkan xale bi bi mu juddoo indaale na bakkan maanaam faatuwul mu ngi dund waaye mu ngi jooy ay jooy yu métti trop médecin yi ku nekk jël di nax ngir jooy yi muy jooy si dem benn médecin ci médecin yi daal di génn bi mu génnee nag ki nga xamante ne mooy magi Aïssa daal di jug daal di daw daal koy gotandu ñi nga xamante ne ay mbokki Aysa lañ daal di daw daal ci topp bi mu demee ba àgg daal di koy laaj waa ana Aysa ba accouchement bi jàll na ci jàmm ana moom moom ba mu ngi ci biir si la ko médecin bi waxee daane leen accouchement bi jàll na ci jàmm waaye dafa am xew-xew bu ci am ci noonu nag mbokk yi ñoo ngi xalaat naan bettuñu ndax ñoom moom mosu ñoo yaakaar ne kii nga xamante ne mooy doomu Aysa ji su juddoo dina indaale ba kan ba tax na ñoom xalaatuñ Aysa benn yoon kii nga xamante ne mooy doomam ji rek la ñuy xalaat waaye médecin bi da leen wax ne Aïssa am na doom ci jàmm doom jàng ci biir ñu ne ko ah doom ji moo ngi dund mu ne leen waaw waaye kii nga xamante ne mooy Aïssa dafa ñàkk ba kanam ci noonu nag hôpital bi jaxasoo na loolu ndax yuuxu yi nga xamante ne jotoon na am sax te kii nga xamante ne mook Aïssa ak Rama jotoon ko faa def bii am dafa gën a pire ndax bii mbokki Aïssa ya fa nekkoon xawoon nañoo takku daanaka tolloon nañ ci juróom-ñaari te ñoom ñëpp dañoo yenn seeni ay loxo di yuux ay yuuxu yu metti ndax aysa bi nga xamante ne tàgge nañ leen ko ki nga xamante ne nag mooy magi aysa di seen taaw dafa poñe docteur bi rek daal di koy wéer ci miir bi daane ko waxoo dëgg sama mag mënta gaañu ana yéen lan ngeen fi jariñ liggéey bu bon bi nan ngeen ko mën a defee daan leen nag li moom bu leen yaakaar ne mukk di ngeen ci génn dañ koy topp ci noonu nag mu mer loolu ci jamono yooyu loolu di xew nag fekk na Moussa Ndiaye doog di yeewu nag mënta jug ndax ay jooy waaye si la daal di yóotu téléphone bi daal di xool bi mu ko jëlee nag daal di koy taal si la gis ay appel yu bari loolu ci diggante boobu nga xamante ne mu ngi jug pour jubale hôpital si la jotaat beneen appel bu bees si la daal di décroché appel bi maanaam daal di wuyu appel bi bi mu wuyoo nag kii di magi Aïssa di seen taw dafa wax ak moom rek daal di koy saaga nekk si sa aaw boobu nga xamante ne lii dal su sunu rakk ji tey génnewu ma ko ci nga nekk ci àll bi di taxawaalu ba sa soxna mu ngi nii def na accouchement ba am na doom yow mi jëkkëram nga war koo soutenir war koo jàppale nekk ci àll bi ba ay saa ngi nii dee na monsieur Ndiaye nag bi nga ko waxee loolu dafa yuuxu yuuxu yi metti loolu daal di sànni téléphone bi daal di tàqali ko ak sogom ci saasi maanaam monsieur Ndiaye nekkatut monsieur Ndiaye mën nañ ne dafa dof ci saa si la daw xel yu mat daa di wàcc escalier yi bi muy wàcc sax nekkul di ñett ñett escalier yi dafa tëb daanu ci suuf. si la daal di gaawantu daal di jug daal di tijji bâtiment bi bi mu ko tijjee nag daal di daw bi muy daw nag gardien yi am na ñu ko gis doon daw pour jéem koo téye waaye Moussa Ndiaye da leen daw romb leen daal di njëkkante fi nga xamante ne mooy port oto bi daal di dugg rek daal di koy tëj daal di taal oto bi taalin bu metti loolu yeggal vitesse si ba mu sës daal di daw ay xel yu bëri loolu ba mbedd mi sax. képp koo xamante ne doon nga traversé da ngay puus ñëpp di ko yuuxu ndax li nga xamante ne moom lay dawkat bëri na loolu moo raw sax bañ ko tàggee ne Aïssa dafa def soog ba nekk hôpital vitesse yi mu doon daw ci tali bi yi muy daw bii yoon moo ko ëpp fuuf sax ba nga xamante ne Moussa Ndiaye moom mbedd mi képp koo xamante ne doon nga see oto bi ñëw gaaw nga daw dugg sa kër ci noonu nag Moussa Ndiaye di daw ay xil yu metti bi mu demee ba nga xamante ne nag jub na fi nga xamante ne mooy tali bi tali bi nga xamante ne si la war a jaar yoon bi nga xamante ne moo jëm ci hôpital ba bi muy daw nag ba yéeg ci tali bi dafaa yéegee ay xel yu metti loolu maanaam bàyyiwul xel benn yoon dara bàyyiwul xel benn yoon ne dafa war a wàññi oto bi ba yéeg tali bi maanaam monsieur Ndiaye daal noonu mu génnee ci mbedd mi ni mu doon dawee ci mbedd mi noonu la yéegee ci kaw tali bi monsieur Ndiaye nag bi muy yéeg te sente naag benn camion bu mag doon traversé ci foofu nga xamante ne fii la monsieur Ndiaye doon jéggee bi monsieur Ndiaye nag di jéggi camion bi doon daw ay xel yu mat ñëw rek daal di dal ci kaw oto ki nga xamante ne mooy monsieur Ndiaye. mu nekkoon nag soog mu metti loolu ndax bi mu ko mbëkkee oto ki nga xamante ne mooy monsieur Ndiaye dafa dal fu sori loolu ba wàcc tëli bi sax daal di këpp ki nga xamante ne nag mooy monsieur Ndiaye bi soog bi amee ci sens yi la daal di faatu. bi nga xamante ne nit ñi yuux nañ ba daw jub si oto bi avant ñuy agsi fekk nañ Moussa Ndiaye ñàkk bakkanam ba nga xamante ne jotuñu ko sax sauver waaye ki nga xamante ne mooy camion bi ñi doon ko dawal ginnaaw biñ jaxasoo ba camion bi saaraan daal di dal ci benn bâtiment bi mu dalee ci bâtiment bi nag kanam gi mokk loolu si la am ñu gaaw daal di daw daal di dem pour sauver leen bi demee nag fekk nañ ñi nekkoon ci camion bi muy sëfoor bi ak benn xaritam bu mu àndaloon ñu gaañu gaañu yu metti si noonu nag ñi nga xamante ne ñëwoon nañ pour dimbale leen si lañ gaaw daal woo sàppoor mu daal di di leen sauver si lañ daal di muur ki nga xamante ne mooy Moussa Ndiaye daal di fexe jël ay bainam leen ci ay kayitam pour jël ci ay numéro pour mën a woo ay mbokkam ñi nga xamante ne nag ñoo yéegoon ci oto bu mag bi si leen sàppoor daal di jël yóbbu leen hôpital pour sauver leen. bi nga xamante ne moo jëloon yenn ci ay kayit yi nga xamante ne dinañ mën a jot ay mbokk yi monsieur Ndiaye biñ ko jëlee si lañ ci gis benn numéro daal ciy woote numéro boobu nag numéro Aïssa la waaye kii di monsieur Ndiaye ba mu jógee hôpital moo yoroon téléphone du Aïssa mais ba muy jógee hôpital pour dem fi nga xamante ne mooy këram dafa jëwoon téléphone bi jox ko ki nga xamante ne mooy magi Aïssa di taaw bi pour képp ku wootee mu mën a wax ak moom ba tax na bi sàppar wootee ci numéro boobu moom lañ jot biñ ko woowee nag si lañ ko wax ndax dangaa xam monsieur Ndiaye mu ne leen waaw xam naa ko lan moo xew si lañ ko xamalee ne monsieur Ndiaye dafa def benn soog bu xaw a garaaw loolu ba dañ leen soxla yéen ay mbokkam pour ngeen ñëw jàppale ko si lañ jëlee ci ay BM yi nekkoon ci otoom si lañ woote numéro bi kooku nga xamante ne nag mooy magi Aïssa di seen taaw si la daal di wax ne ko loolu suñu yoon nekku ci ndax kii di monsieur Ndiaye jabaram ngi nii ci hôpital bi mu bàyyi ko fi dem di taxawaalu ba soxnaam si dafa mujjee gaañu daane ko kooku di Moussa Ndiaye su dee ci sog bi sax suñ yoon nekku ci ndax boobu fekk na dafa mare Moussa Ndiaye loolu te moom kat mu njëkkoon a waxtaan ak Moussa Ndiaye pour mu dem jàppale ki nga xamante ne mooy Rama ba Moussa Ndiaye gàntaloon ko si la ko sapeur bi waxee nag yow mii kat dafa mel ni amoo xol ne kii di nga xamante ne nag mooy Moussa Ndiaye sog bi da cee ñàkk ba kanam maanaam Moussa Ndiaye dafa gaañu bi waxee loolu nag kii nga xamante ne mooy magi Aïssa dafa tiit dafa tiit loolu sax mu daal di jaaxle loolu jékki-jékki commencé di reetaan naan waa lii moom nu mu mën a demee ndax moom dee gi nga xamante ne sa dee na ko ci surne bi ba pare Moussa Ndiaye faatu jaaxal na ko loolu maanaam ñaari bakkan yi nga xamante ne dem nañ diis na ci boppam ba nga xamante ne. ne mbir mi daal comme ay gént ji moom ba tax na biñ ko waxee ne Moussa Ndiaye dafa gaañu bi mu taxawee tuut dafa commencé di ree donte ree yi nag ree ku jaaxle la te naan waa lii nu mu mën a nekkee ndax couple bi nga xamante ne biñ dalee ànd yàgg na loolu. ñoom ñaar ñëpp boole mbokk gi ba tey ñoom ñaar ñëpp wuy ji seen borom ci benn bis. ndeysaan kii nga xamante ne daal mooy Rama tas na famille bi lëmm muy famille Moussa Ndiaye ba boole ci ñi nga xamante ne sax seen ay yoon nekku ci te ba léegi kenn xamagut lu xew ak lan moo waral lii lépp. si noonu si la kenn koo xamante ne rakk la ci Aïssa daal di ñëw gis ni mag ji di réassuré mu daal di koy laaj waaye yow moom lan ngay taxaw fii ak di reetaan lan moo xew si la ko waxee ne man kay xam naa ne fu mu toll nii dara xewul. daal ne ko man kay xam naa ne damaa dof yéen wér ndax man moom li may imaginer nii xam naa ne amul ndax moom mënul gëm ne li xew ci ñaari bis yi lu am la moom daal jàpp na ne moo dof dofuk boppam di xalaat ay xalaati dofam mais liñ koy wax nii dara amu ci si noonu rakk ji daal koy wax ne ko teg maa wax li xew. te nga ànd sa sago te bàyyi sa jikko yi ngay def ndax jikko yi kat fajul dara lépp loo dugg danga nga war a ànd ak dal si noonu si la ko ki nga xamante ne mooy magam ji di magi Aysa daal di koy wax ne ko sàppoor moom moo woo léegi wax ma ne Moussa Ndiaye bi muy ñëw ci hôpital bi bi ma ko woowee ba muy ñëw dafa def soog bu metti loolu ba dafaa jaaree ñàkk ba kanam si la ñu toogoon foofu ñëpp daal di dar seen gimiñ gi maanaam daal di jommi ànd ak jaaxle loolu te naan waa lii nu mën a nekkee ndax ñoom mbir mi daal jombal na leen trop am na ku fa nekkoon nag koo xamante ne ci hôpital bi la xamanteeg ñoom ndax dafa yore ab malaat comme ñoom ni mu fa yore malaat ba tax na daan na waxtaan ak ñoom kooku nag si la leen laaj kan mooy monsieur Ndiaye xanaa nekkut ki nga xamante ne moom lañu wax ne mooy jëkkër yi ki ngeen indi ci hôpital bi ñu ne ko waaw kooku la mu ne cey yàlla yéen yàlla nattu bi leen teg mett na loolu waaye muñ leen da ngeen ànd ak seen xel te ngeen ànd ak dal ndax saaru natt yi moom soo si ànd ak sago mën na laa indil ay jafe-jafe maire bi nag comme que yor na fa malaat waaye li nga xamante ne métti na trop te dal ci kaw ñi nga xamante ne ñooy fami Aïssa bi tax na mu fàtte ki nga xamante ne mooy malaat bi fi indi ndax yërëm leen waaye nag ki nga xamante ne mooy yaay Aïssa bis boobu nekkoon na bis bu metti ci moom loolu donte yëgul xew ndax kenn wowu ko pour wax ko ne Aïssa dafa gaañu ndax dañ ko ko bëggoon a nëbbu ndax feebar bi nga xamante ne moo nekk ci moom bi nga xamante ne tëdd na yaramam di metti mu taaye loolu ba commencé di jàppante ak ay nelaw si la sentiré ne am na leer ku ko tiim gu weex tàll leer naññi si la daal di xippi daal di xool maanaam meer bi géntul dafa commencé di janeer waaye bi mu xoolee nag dafa jàkkaarloo ki nga xamante ne mooy Aïssa meer bi bi mu xoolee bi mu gisee Aïssa dafa tiit ndax Aïssa mu ngi sol yëre yu weex tàll kanam gi leer loolu ba pare mu daal di ànd ak leer bu bari ñëw daal di tiim meer bi si la daal koy woo ñetti yoon daane ko yaay yaay yaay diglu ma bu baax a baax meer bi nag mënta wax benn yoon bëgg naa wax ak Aysa waaye mënta wax si la ko Aysa waxee na ko yaay nag xam naa ne man moom maa dëgër bopp ndax yàgg nga maa wax naan ma Aysa sa xaritu démb xëy bàyyi la na la gënal foofu sa noonu démb xëy bëgg la ndax yatu noonu du réer da koy denc te saa bu ko talee jëlu ko ne ko yaay nag loolu moo ma dal ndax sama wujj bii dama doon bëgg lu rafet ba tax ma jiboo ak moom njëkkate yéenu ma benn yoon jàmm ba tax na si la jëlee li nga xamante ne mooy laalo diw ko ci kore yi ba si laa daanu jël bu metti loolu ba nekkoon hôpital ba teg leen ay njàqare ki tiis te lépp ramaa ko waral ginnaaw loolu nag coono yi jàpp na ma ba bi may accouché pour am doom si la yàlla daal di jëlee sama bakkan maanaam man léegi bokkutuma si àdduna maa ngi bokk ci ñi nga xamante ne ñoom la ñu woowee waa elaaxira daane ko nag wasin naa ba génn ci am naa doom bu góor boo xamante ne mu ngi dund faatuwul waaye xam naa ne su juddoo du fekk kenn daane ko yaay nag nag dimbali nga jéem a toog bul ma fekk si nga jàppal ma ki nga xamante ne mooy sama doom jooju ndax bëgg ma mu màgg nekk nit koo xamante ne day tumuranke ba tax na bëgg naa nga jàppal ma ko nu raw ni nga ma jàppee woon maanaam man yar bi nga loo ma yar bu ko raw nga yaral ma ko kooku nga xamante ne mooy sama doom bu góor bi donte nag jëm nga mag waaye gëm naa ne sa jàmbaarte may na la ko te xam naa ne di ma ko defal si la ko waxee nag ñetti yoon ne ko yaay dénk naa la ki nga xamante ne mooy sama doom bu góor bi. bi mu waxee loolu nag ba pare rek dafa daal di mes dafa daal di jékki-jékki mel ne ku seey daal di dem bi mu demee nag ki nga xamante ne mooy yaay ji daal di jug ci lal bi. daal di commencé mën a def ay geste maanaam li nga xamante ne yëpp Aïssa tiim na ko di wax mënut a yëngatu waaye bi Aïssa demee rek dafa jug bi mu jugee gaaw daal di daw daal di génn néeg bi bi mu génnee néeg bi nag moo ngi fekk ki nga xamante ne rakk la ci ay rakk ki nga xamante ne moom lañ bàyyiloon ak maire bi pour mu koy toggal ak yooyu noonu. fekk na ñu jox ko annonce bi ba wax ko ki nga xamante ne mooy Aïssa gaañu na waaye waxoon nañ ko bul ko wax maire bi benn yoon ndax soo ko waxee mën na ko indil ay jafe-jafe ci feebaram boobu nga xam ne dal na ko. maire bi nag bi mu génnee dafa fekk xale bi toog daal di sa ngémm maanaam toog jël loxo yi teg ko ci gémmiñ gi si la ñëw nag daal di koy bumax daal di koy yëngal daane ko ana Aïssa sama doom yow laay waxal tontu ma ana Aïssa dafa dee si la kook nga xamante ne nag mooy doomam jooju bokk ci doomam yi nga xamante ne ñoo gën a ndaw si la daal di jug daal di koy wax sa feebar bi moo taxoon bëgg ñu laa wax dara ñàkk na bakkanam ci suba lañ ma woon wax ma ko waaye nanguwuñ ma wax la ko benn yoon bi mu ko waxee loolu nag maire dafa daanu ni nga xamante ne taxawoo woon na ko tiim ko di ko wax bi ndaw si waxee loolu maire bi dafa bàyyeeku yaram bi carrément daal di lu jël bu metti daal di xulli bët yi xool ci kaw daal def geste boo xamante ne si nit ki faatu lañ koy faral di gisee muy xulli say bët bàyyi sa ay loxo sa cër yépp bàyyi. fii nag lañ yem ak yéen seen épisode 4 di leen jox dig daje. ci épisode 5 bi nga xamante ne si lañ war a defee fin bi si lañ leen di waxee ki nga xamante ne mooy xaritu Aïssa doon yóbbu Aïssa ci ay sëriñ ak digga diggal lu bon fan la mujjee ak dundam te épisode 5 si lañ leen di leeralee lan moo waral ñu tuddee histoire bi soxor kon ñu leen jox di daje beneen yoon incha allah dalal ak jàmm ci suñ kër gi di suñ production di leen xamal ne ñoo ngi amal ay histoire yu am solo te di leen jëriñ fekkee gan nga ci seen bi nga abone te partagé ko sa ay xarit ngir ñu mën ci jariñu sunu production sunu mbégte